bismillahi irrahmani irrahim taasin tilka ayatu alqur'ani wa kitabin mubin hudan wa bushra lilmuminin alladina yuqimuna alsalata wa yuutuna alzakata wa hum bilaxirati hum yuqinun إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر نواتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعاقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا aouzu billahi min asheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi xayli fi kitaabihi l aziz fa zakir fa inna zikra tanfaul muminin waxaal subhanahu wa taala fa zakir bil qurani man yaxaafu an wa usalli wa usallimu ala abdillahi wa rasulihi allazi ma taraka baaban yalamu fihi xayran ila dalana alayhi wala tariqan yu addi ila charri ilaa xasrana minhu mbokk yi seetaan télévision Mafatihul Bichri ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziar leen ñu ngi leen di wax ni ñu ngi dellu si waat ci émission bu am solo mu di kaddu daara yi saa su nekk ñu ci ànd ak yéen ci télévision Mafatihul Bichri ci dem ci daara yi nga xam ne macha allah ñoo fa nekk di jàngale li nga xam ne moom moo di alquran bu am solo bu tedd boobu nga xam ne yéen a ngi koy bëggee ci émission kaddu daara yi tey nag ñu ñëw fii ci euh, parcelle unité 3 seet si daara ji nga xam ne moom mooy daara euh, daaru sunnatu rasul daara ji nga xam ne Serigne Abdourahmane Ndaw moom moo ko taxawal fii ci euh, Kër Massar parcelle unité 3 mu nekk daara ju am solo joo xam ne tey moom lañ seet si fas yéene fee defee li nga xam ne moom moo di émission kaddu daara yi lépp xam ne itam fekk nañ ko ci biir daara ji incha allahu rabbi dinañ leen ko dégtal ci li xam ne moom moo di njàng mu am solo mi nga xam ne ñu ngi koy jàng alquranul karim waaye itam dinañ am ak euh, Serigne Abdourahmane Ndaw ak ñi nga xam ne ñoo ëmb daara ji ci jotaay bu am solo boo xam ne dina leeral lépp loo xam ne rek euh, nekk na ci biir daara ji ci incha allahu rabbi ci ni muy doxeek nañ koy doxalee mu am solo lool macha allah kon sëñ Mor dañuy ànd ak yéen rek daal di dugg ci biir daara ji seeti ñi nga xam ne ñoom ñoo di tout tànk yi nga xam ne ñoo fi nekk di jàngale nga xam ne moom moo di alquranul karim وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو jërë ngeen jëf vision mafatihul bichri ñu ngi fii ci daara euh, daara sunnatu daaru rahman sunnatu rasul mu di daara ju am solo nekk fii ci Kër Massar parcelle unité 3 ñu ngi us taxaw ak ki nga xam ne moom moo di oustaz Dramé moom it nekk fii usas Makhtar Pouy nekk fii ci daara ji yor ndongo yi ginnaaw muñ ko nuyoo ziar ko rek ñu bàyyi ko mu nuyoo wala ñu benn ndongo boo xam ne dinañu mën a tari alxuraan salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waa Touba Bichri Mafatihul Bichri TV ñu ngi leen di ziar bu baax di leen nuyu kenn ku ne sa tur sant di leen baalu àq di leen baal àq di leen jaajëfal ci eh, émission bi ngeen fi bëgg a amal ci daara yi Daara Rahman Sunnat Rasul te ci njiital sëriñ Abdourahmane Ndaw jide ko ñu fas yéene ànd ak ñoom ci kàddu yi rek eh, jëm cee woo benn donga mu barkeelu tudd ci alquranul karim ñu woo donga bu ñuy wax eh, Baye Sëriñ Ndaw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 alif laam miim zaalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin alladiina yu'minuuna bilghaybi wa yuqiimuuna as-salaata wa mimmaa والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون sadaqallahul azim jërë ngeen jëf mbokk yi kon kooku mooy oustaz Pouye moo yore classe boobu nga xam ne fi la tuut tànk bi doon tare léegi alquran ñu ngi ak oustaz Makhtar Dramé dañ koy bàyyi rek moom tamit mu Mouhamed Dramé euh, mu nuyoo ak mbokk yi daal di ñuy wol benn tuut tànk ci classe am bi nga xam ne moom la yor fii ci biir daara ji aoudu billahi min alsheytan irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi alladi qaala fi kitaabi inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu la xaafizuun wa usalli wa usallim ala man qaal xayrakum man taallama alqur'ana wa allama assalaamu aleykum ayuha al ixwa wal aqwaat nuxayikum bi taxiyati islaamiya mubaaraka alaa wahiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh wa naqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban bikum wa naqul addaaru daarakum wa baax gannaaw buñ sante yàlla julli si yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi am kontaan ak mbégte ci télévision bi nga xam ne mooy ñëw si daara ji di leen dalal di leen tatagal di leen wax ne daara ji seen daara la dal leen ak jàmm gannaaw buñ jógee ci loolu dañuy dugal benn ndongo rek ci ndongo yi mu jàngal ñi alquran maa tayassara min nadu al at talab at talib yusamma cawlaay jóob cawlaay jóob tafaddal inshallah أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون sadaqallahul azim jërë ngeen jëf mbokk yi macha allah kon Mouhamed moomu moo yore euh, classe bi nga xam ne fa la tuut tànk bi doon taree alquran léegi ñu ngi fii ak benn euh, yaa saydaat mu mel ni ki moom it mi ngi yore fii jigéen ñi ci seen daare sëriñ Abdourahmane Ndaw fii ci euh, Kër Massar parcelle unité 3 mu nekk daara joo xam ne macha allahu daara joo am solo la ñu bàyyi ko rek moom tamit mu nuyoo mbokk yi seetaan télévision ma faatihul Bichri salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. alhamdulilahi rabbil alamin rahmaani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata alladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp ci seen di rafetlu seen teewaay ndax alxuraan moom dafa doon lu am solo moo tax bi ngeen ñëwee fii kontaan nañ ci yéen lool léegi nag moom samay kàddu day xaw a néew ma woo donga bi rek mu tari mu barkeelu ci bi fàttali ñu tur bi waaye su maam jaara bopp soxna mam jaara bopp maam jaara bopp mm-hmm. yore daara yaa say daal ñu mm-hmm. bàyyi la nga woon ni benn tànk mu soxna Koddu auzu billahi minas saytaanir rajiim bismillahir rahmanir rahiim walaqad aataynaa Muusaa al-hudaa wa هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبرن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ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 أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون صدق الله العظيم soxna koddu ñas maa lay nuyu di la ziyaare di la wax ahlan wa sahran marhaban bikum doon bëgg doon sàkk ci yow nga defal tuuti ci leeral alxuraan fi mu jige ci kim jaar ak kiñ ko doon indil soxna Awa Ndaw lool de soo ma ci laajee naal ci sawara tontu torop aca bismillah alquraan mu ngi jóge ci suñ boroom jaar ci saydina jibril ñu indil ko saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu jëm ci xeetum wi du sunu delluwaay du sunu weeruwaay du lin nii laaj bu ëllëgee banda auzu billahi min alshaytani irrajim fastamsik billadi uuxiya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu la zikrun laka wa li qawmika wa sawfa tusaluun yow Muhammad jàppal bu dëgër liñ la jox nga xam ne yaa ngi si yoon wu jub xoj yaa moom yaag sa wi te des na lañ ko laaj alxuraan diirum ñaata at la wàcc alxuraan diirum ñaar fukki at ak ñett la wàcc màkka fukki at madina wan saar moo njëkk a wàcc ci alxuraan saar wu njëkk a wàcc mooy suuratu naalaq saaru iqra bismi rabbika allazi xalaq màkka la wàcc ca xaarun xiraa xaarun xiraa nag am kunti la wan saar moo mujj a wàcc ci alxuraan saar wu mujj a mooy suuratu nasri izaa jaa nasrullaahi wal fatu wan saar moo gën a gudd ci alxuraan saar wu gën a gudd ci alquran mooy suuratul baqara wan saar moo wan saar moo gën a gàtt alqur'aan saar wu gën a gàtt ci alqur'aan mooy suuratun kawsara inna a'taynaaka alkawsar ban aaya mo mujj wàcc ci alqur'aan aaya ba mujj wàcc mooy wattaqu yawman turjaw fii ilallah summa tuwaffee kullu nafsin bima kasabat wa hum laa yuzlamuun ci suuratul baqara am nañu wax alyawma akmaltu lakum diinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum diina ca suuratul maa'ida aaya alqur'aani ñaata la aaya alqur'aani 6666 aaya la ñu koy wax ci olof juróom benn junni ak juróom benn téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn bismillahi arrahmani arrahim taasin tilka ayatu alqurani wa kitabin mubin hudan wa bushra lilmuminin alladina yuqimuna alsalata wa yutuna alzakata wa hum bilaxirati hum yuqinun inna alladina la yuminuna bilaxirati zayanna lahum amalahum fahum yamahun أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر نواتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi ànd ak ñun saa su nekk ci télévision Mafatihul Bichri ci euh, euh, ci émission bu am solo bi nga xam ne moom moo di kaddu daara yi su nekk ngeen ci ànd ak yéen tey nag ñu ànd fii nga xam ne moom mooy daara sëriñ Abdourahmane Ndaw ñu koy wax Daaru Rahman Sunnatu Rasul mu nekk fii ci Kër Massar parce unité 3 muy daara ju am solo macha allah gis ngeen ko noonu tout tànk yi alquran bu am solo bi nga xam ne tar nañ ko ci waaye itam ci façon njàngalin bu am solo dégg ngeen ko noonu ñu doon génnee maxaarijul xuróof yi mu am solo lool waaye ñu ngi jaajëfal képp koo xam ne rek yaa ngi ci biir daara ji di jàngale li nga xam ne moom moo di alquran mu ni kii ñi nga xam ne ñoo fi nekk di di di uh, ustaas yi fi jàngale ak yaa sayda boobu nga xam ne moom moo di soxna jaara su ngeen déggee façon njàngaleem rek xam ngeen ne ma nga bàyyee foofu ci uh, ci poroxaan mu di uh, daara ju am solo joo xam ne képp ku fa génnee rek macha allah dafay am jeexintal bu nekk ci yow ba tax na gis ngeen ko mu ñu gisaat ko ci tuut tànk yi rawatina taalif bu am solo boobu nga xam ne moom lañ def jëmale ko ci alquran mu am solo lool macha allah ñu koy ñaanal ñaanal képp koo xam ne rek yaa ngi ci daara ji ñu ngi ñaanal yàlla fay la mu mel ni que ñu ngi toog ak sëriñ Abdou Rahman Ndaw euh, ndax bu ngeen ko xoolee rek xam ngeen ne yéen a ngi koy xàmme ci télévision bi nga xam ne moom moo di Lamp Fall TV waaye ñu ngi itam ak euh, sëriñ daara bu am solo bu mag boo xam ne moom it mi ngi participer ci li nga xam ne moom moo di diine l'islam waaye itam di participer ci doomu jullit yi jàngal leen alquran mu di sëriñ Assane Diop xam ngeen ne demoon nañ ci daaraam def émission carte daara yi xàmmee ngeen ko mooy daara ji nga xam ne moom moo jëloon li nga xam ne moom moo di moom la ñuy wax ab baar ab auberge def ko li nga xam ne moom moo di daaray alquran te waxoon nañ leen sax ngeen participer ci li nga xam ne moom moo di daara ji ndax dañ ko koo jaayee woon ci ay millions yu bari bu mel ni que ba fii ma nekk nii sax yaakaar na ne ci jënd nga ak jaay ma ba léegi waaye daal bëgg nañ koo def li nga xam ne moom moo di daara alquran waaye tey nag ñu ci daara Serigne Abdourahmane Ndaw ñu bàyyi ko mu nuyoo ak mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan télévision mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi leen di nuyu yéen waa Bichri TV euh, di jël sunum nuyu ak sunub siyaar di ko teg ci loxol soxna Jamila mi ak di jottali nuyu mboolem waa daara ji yëpp ñi fi di góor ñi fi di jigéen ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu te di leen wax euh, marxaban Moussa ginnaaw bi ñu la nuyoo ziar la itam di la euh, dalal ci télévision ma Fatihul Bichri xam ngeen ne saa su nekk sax yaa ngi ci ànd ak ñun ndax mu mel ni ki bëri na ci programme yoo xam ne yaa ngi ànd ak ñun ci télévision ma Fatihul Bichri waaye ñu bëggoon a xam nag ran moo lan moo tax nga tijji daara ji nga xam ne moom mooy daara daaru Rahman Sunnatu Rasul. jërëjëf euh, soxna Jamila euh, daara ji de ñun sunu njëlbeen wax dëgg yàlla bu fekkee dañuy wax dëgg rek amuñu woon xemmemteefum jàngale na ñu woon ci yeneen. waaye ci atum 2004 maam fin 2004 ci lañu dem doon waaj ab tukki dem ci Serigne Saalihu doon ko tàggu ginnaaw buñ tàggoo suñ jur ba noppi mu yebal ñu ci moom biñ demee ñu fekk ko njurul ñu tàggu ko ngir tukki pour bëgg mu ñaanal mu xamal ñu ne nangeen dem toog te jàngale ci mm-hmm. na ngeen dem toog te jàngale jooju nag biñ ñëwee ci lañ daal di ubbi daara ji mu nekk 2005 <coughs> fële ci jàmm gën la daara ji tàmbalee waaye foofu at ak lu tuuti lañ fa def ci juin 2006 ci lañu daal di ñëw fii nga xam ne mooy Kër Massar booy xool daanaka Kër Massar kon ñu fi bëgg a def 11 ans fukki at benn depuis boobu ba léegi itam ñu ngi sax ci loo kàddu googee rek muy jàng ak jàngale turu daara ji nag. moo di ñun dañoo bokk daaru di njabootuk Cheikh Abdoulahi Mbacke ñu jël daaru googee sëriñ Mouhamadul Habib moom Cheikh moom Cheikh Abdoulahi yokkal ñu ci sunnatu rasul ñu boole ñaari tur loolu moo indi daaru rahman sunnatu rasul li tax fii si quraanil karim wa tarbiyatul islamiya depuis boobaak léegi nag <clears throat> ñi ngi fii ñoog ñoogi di góor góorlu rek gis nga classe yooyu nga génne ñeenti kalaas la yu góor ak benn bu jigéen benn bu jigéen bi ki ko yor sama soxna la yeneen kalaas yi ci des ñi ko yor samay rakk lañ ñu nekk fii nag di liggéey àndal kook ñun ci liggéey bi di jàppalante euh, daara ji nag bi mu sosoo ba léegi euh, ndimbalul sunu boroom waaye itam baatinub sëriñ bi feeñ na ci ndax mën nañ wax ne daara ji am na autorisation boo xam ni daara yi ko am bëriwul maanaam autorisation boo xamante ni bii reconnue par le par l'état nga xam ne état moom moo signé autorisation bi bu ñu xoolee ñeent fukki daara ak ñaar yi nga xam ne ci 2000 ba daara sosoo ba léegi muy 2013 ñoom lañu ñu reconnaître daara ji bokk na ci ndax ñoo yore numéro 42 loolu ñu sant ci yàlla bu baax. Euh, boobaak léegi wax dëgg yàlla lu ne ñu ngi ko fiy jànkoonte waaye ñu ngi sant yàlla bu baax daal. Hmm. Mm-hmm. daara ji nan lay doxee ci yan condition lay doxee. waa daara ji de ni muy doxee weesuwul dafa am njabootuk njabootuk yàlla gu fi ne njaboot googu nag bàyyi ko ci ay kër bu ñu xoolee lu jege soixante quinze xale ñu ngi fi. ci biir soixante quinze yi am na ci dix huit wala dix neuf yoo xam ne euh, dañ leen a jël comme cas sociale nga xam ne ñoom fayuñu euh, lañuy ñuy fayit mën naa wax ne loola ak fay lañ koy tuddee waaye du fay ndax ñun bi ñu defee étude bi xool xale bu nekk li mu war a li mu war a lekk li mu war a jëfandikoo lépp buñ ko xoolee xale bu nekk. fukki junni ak benn kon moo waroon a doon ak payam biñ defee étude bi euh, ci ay chiffres yu leer waaye gis nañ ne daara yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Kër Massar ak li ko wër maanaam amu ci kenn koo xam ne sax junóomi junni yu mat sax daanaka dinañ la ko fay kon booy xool maanaam loolu du fay euh, ñuy jànkoonteeg nag ak i ak i coono ndax barab bii ñu nekk nii xam naa sañaasan dina ci ënd gën a indi leeral moo di Euh, biñ ko sosee ba léegi coono yi ne fekk nañ fi ci wàllu liyaas yu mel noonu waaye boo gisee bëgguñu fee jóge mooy ñi yor njabootu jaambur di tuxu tuxee maanaam fu ne ñu nga dëkk fa loolu dafa gënut moo tax waxtu woo xam ne boroom kër gi yëngal na rek na day yokk rek ñu fekk si ko ci fii ne bu ma la doon tënkal dama lay wax ne la daara ji lu jëm ci wàllu salaire yi ñuy fay ndax juróom lu war mat juróom benn wala juróom ñett ñi ngi fi ñoo xam ne ci la ñuy liggéeyee ndax am na ko fiy jàngale francais am na ñu fiy jàngale alxuraan am na ñu fi yë ñoo xam ne ñooy fóotal xale yi am na ñoo xam ne ñooy toggal xale yi ànd ko njaboot gi bu ñu xoolee ci wàllu fay googu mi ngi nekk quatre cent quatre-vingt-dix mille waaw ci ci dépense ak euh, maanaam salaire ak ak ak waaw bu fekkee ne ci wàllu dund bi la nga xam ne wàllu ceeb ak yooyu nga xam ne moom la busa busa yi jëfandikoo man nga calculer quatorze sac quatorze sac boo ko xoolee fi mu nekk daf lay jox cent quatre-vingt-neuf mille par weer bu dee dëwlin boo calculer cinq bi bidon dëwlin vingt litres dana la jox quatre-vingt-sept mille cinq cent dépense bi nga xam ne xaalis liquide la moom par jour boo ko xoolee dana la jox cent quatre-vingt-huit mille bu fekkee ne waaw vidange fosse yi nga xam ne nii foos bi fi ne nga xam ne weer wi dinañ ko vider lu war a mat ñeenti yoon. nga xam ne ki ñuy wideel sax vingt trois vingt cinq mille yi ñuy ko moom wàññil nañ ci deux mille francs ndax ak yërmaande gu mu gu mu am ci ñun loolu fi ne jox na boo ko calculer daf lay jox quatre vingt douze mille <coughs> courant ak ndox bu fekkee par ñaari weer la facture yi ñëw mais soo ko xaymaa nga diffuser ko dana la jox quarante cinq mille par weer mburu mi ñuy ndekkee donc soixante mille la hmm. mi daara yi ndekkee par weer. loolu lépp boo ko calculer dafay nekk un million quatre vingt quatre vingt onze mille cinq cent. waa par weer. te un million quatre vingt on quatre vingt onze mille cinq cent yooyu. Eh, am na benn muraaxib bu fi nekk mooy eh, sëñ Saliou Sène ak sëñ Matar mi ñi ci ëpp xaalis yi dugg ci daara ji dina jaar seen loxo waaye ñoom mën nañoo seede ne li ñuy li ñuy li ñuy récolté ci doomu mi yi muy jëm si ci daara ji par weer matul un million. li ci des nag xam naa ne kon dañ laaj fan lay jóge mhm. waaye kon <laughs> lañ cay tontu mooy la sëriñ bi waxoon ne sëñ Saali waxoon ne des na jàppale ba nga yëg ko mhm. kon jàppaleeg sëriñ bi kon mooy mottali lool waaye bu fekkee ne yaa ngi dépensé un million chiffre mhm. global un million neuf euh, quatre-vingt-onze mille cinq cent te li ngay jot parweer weer matul un million kon la koy mottali jàppaleeg sëriñ bi la waaw loolu lañ ci mën a tontu ci côté boobu Euh, jërëjëf euh, sëriñ Abdourahmane Ndaw macha allah mu mel ni kii am na solo lool waaye nag fi mu nekk nii euh, xolu yërmaane sax daal dinay dugg ndax lii bari na lool ci li nga xam ne moom moo di daara ci daara ji nga xam ne nii dafa mel ni kii daara moom dañ ko boolewul ci li nga xam ne moom mooy société bi moom moo di réew mi ndax dañuy gis ne état moom daf leen xaw wan ginnaaw lool lool lool waaye yaakaar naa ne ku leen ciy xaar doo doo sori ba tax na comme ni nga ko waxee rek sëriñ bi moo lay jàppaleel boppam waaye itam ku wax daara rek wax jafe-jafe yi nga xam ne moom ngay dund mu mel ni ki xaw nga faa laal jafe-jafe yi waaye bëggoon nañoo xam itam maanaam yenn partenaire ñooy yi nga xam ne ñoom ñoo lay jàppale ah ginnaaw sëriñ bi nag am nga yoo xam ne xanaa ñoo lay jàppale ci wàllu dund beeg yu demee noonu bëggoon nañoo xam itam fi mu nekk ci jamono bi ñu nekk nii te jii ku doon jàpp ci liggéey bi ci ban fànn wala ci ban côté ngay jàppee ci liggéey bi waaw kay jërëjëf ndimbal day moom ñun ci yàlla rek lañ koy séentu xëy na nag dina am ci ay jëmm yu mu koy jaarale ndax loolu sëriñ Saliou waxoon ni des na nag jàppale ba nga yëg ko maam loolu laa gëm man maa gëm ne jàppaleem moom mooy dox ba léegi waaye am na ay benn benn yoo xam ne xëy na ñoom seenu jàppale ci daara ji ñu ko ñu ngi ko ñu ngi ko ci ñu ngi koy gis bu ma ci tuddee ko mel ni alxaaji a Sëy ak magam sëñ Aliou Sëy ñooñu seeni njaboot sax ñu ngi fi waaye ñoom dañuy jàpp ci daara ji ku mel ni alxaaji daam faal euh, moom it di ko xam fii ci dëkk bi moom it di kuy jàpp ci daara ji la euh, ku mel ni kii taala saadi muy transport saadi ñoom ñuy jàpp ci daara ji lañ bokk na ci itam euh, maanaam benn benn ti parents d'élèves yi lu mel ni kii ku mel ni kii sëñ Ibra joxaane ak yeneen mbokk yi nga xam ne ay parents d'élèves ñoom ñu ngi ciy jàpp waaye ndimbal lu bàyyikoo ko ci état moom mm, jëtu duggagut ci daara ji am na nag benn benn benn benn benn benn association wala xaw nuñ koy tuddee boo xam ne moo di fondation Marème Faye Sall kooku nag du état mais démembrement état la waaw moom mm, boo koy wax sax yenn saa yi léeg-léeg yi dañ may ree mas nañ fee ñëw indi fii lu war a man ñetti saakuy ceeb fii ci daara ji ak euh, fukki litre yu dëwlin defe naa ak gorosu suukar ak tabletu tàndar loolu moom dugal nañ ko fi bi mu ñëwee euh, ustaas yi mu fi fekkoon nga xam ne ki mu fekkoon mu yoroon daara ji ci loxoom muy Ibrahima juuf dama ko wax ne ko dëwlin gi maanaam ak ak ak ak tàndarma ji nañ ma ko joxal imaam bi fi ne fii ci koñ bi waaye ceeb bi ngeen jël ko yéen ustaas yi ngeen ngeen jëfandikoo ko loolu defe naa noonu noonu la ko doxalee waaw waaye leneen loo xam ne daal lu fees jàppale gu fës guñ mën a guñ mën a guñ mën a guñ mën a wax daal moom jàppuma gisuma ko xëy na jombul nag waaye men gisuma ko waaw bu fekkee ne wàllu daara ji la nag moom sunuy numéro moom lu ñu xam la ndax ci organe de presse la ñuy liggéey la ñuy yëngoo euh, bu dee taamu taamu nañ ñu joxe ko it mën nañ ko joxe. 77 635 67 83 moom mooy mooy mooy tigo bi itam. loo gën a soxla ci wàllu ndimbal. waa xam nga kii dimbali moom kii kii yor ndimbale moom di ndimbale moom moo xam ci yan anam lay dimbale waaye liñ gën a soxla moom mooy dëkkuwaay. waaw dëkkuwaay boo xam ni daara jafe-jafe ne loolu nag dama ko dama noonu sax du ci tudd. damay bàyyee kii ndax am na mbokk moom na sax bi nga xamee ne borom kër gi taxaw na wax ne dafa soxla këram te day jaay mi ko fayee prix mu gàntu mu ne dafa soxla këram am na mbokk moo xam ne sax waxoon ne ba waxoon ñu ne ñu dañuy jëndal barab bu ñu nekk waaye loolu it xam nga comme yéeneem la te junju na ko euh, as gor du du du sonal nit waaw du waaw moo tax boobaak léegi rek ñu ne tekk di déglu waaye loolu daal moom xam naa ne mooy jafeñ-jafeñ bi loolu man gëm naa ne euh, ndimbalul sëriñ bi moo ci moo ñu cay fekk. Mm-hmm. Mm. Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan dégg ko noonu kon numéro yaa ngi noonu képp koo xam ne rek bëgg nga jàpp ci daara ji ak fànn boo ci mën a jàppee rek ñu ngi lay tàllal loxo di li nga xam ne moom moo di daara ji mu ngi toog ak sëñ Assane moom kenn la ci daara ji yaakaar naa ne lépp fi la ko fekk ñu bàyyi ko rek moom it mu nuyoo dugal ñu ci biir daara ji dëgg-dëgg xuusal ñu ndax am na taxawaay bu mag boo xam ne moom it mu ngi koy taxaw ci biir daara ji ndax ñaari jëmm yi jenn lañu sa ay foo gisee kenn ki rek gis moroom ma ca mu mel ni ki kon mënul ñàkk mu teewee li nga xam ne moom moo di émission bi ñu ngi lay nuyu baax di la ziyaar sëñ Assane aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe ñu ngi yëkkati kàddu yu nuyoo yu sell yooyu gannaaw bu ñu santee borom bi subhaanahu wa julli ci yonente bi salaatu wasalaam di ko jëme ci mbokki téléspectateur yëpp yi nga xam ni ñu ngi teewlu Mafatihul Bichri waaye di jël nuyoo bu sell boobu teg teg ci loxol soxna Jamilatu Jaxate mi nga xam ni ma yore émission bu am solo bi nga xam ni mën naa wax ni ma Mafatihul Bichri TV benn émission bu ci ëpp doole émission bi amul ndax euh, mooy émission alxuraan mm, te alxuraan moo ëpp lépp lu dul moom kon soxna Jamilatu ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziara di jël nuyoo bi ak ziara bi di ko teg ci sa loxo nga euh, jot li ko directeur général ak mboolem personnel bi nga xam ni ñi ngi liggéey ci télé bi euh, di leen ñaanal sunu borom yàlla na yokk télé bi bu baax a baax ba li ngeen ci yéene liggéeyal Cheikhul Khadim maanaam liggéey boobu yaatu ba daj àdduna kapp euh, mbooleem télé buñ fiy tudd wala organe de presse buñ fiy tudd seen télé bi yàlla na dem ba jiitu booba waaw kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci taxawaay bi nga xam ni yaa ngi koy taxaw ci kàddu daara yi <coughs> mu mel ni nag tey euh, kàddu daara yi dafa mel ni spécial la ndax dangeen ngeen ñëw ci daara joo xam ni euh, maanaam kenn mënta tudd daara fii ci ci Sénégal mën naa ni tudduñu daara jooju kenn mënta tudd jàngalekatu alxuraan ak kuy liggéey ci alxuraan te tudduñu ki nga xam ni moo jiite daara jii di daaru rahman sunnatu rasul te sëriñ Abdourahman Ndaw jiite ko loolu nag euh, boo gisee ma wax ko maanaam day liggéey boo xam ni dafa bokk ci liggéeyal Cheikhul Khadim yi te it euh, euh, sëriñ bi dafa waxoon ni laa tafaalu cheyan bi xayri isni fal isnu chartun fi xawali chani te dafa mel ni liggéey bi dafa bokk ci ndigali Serigne Saliou yi te kenn sikki sàkkawul ni Serigne Saliou ay ndigalam mooy ndigalal sayxul xadim te ndigalal sayxul xadim mooy ndigalal sunu borom subhanahu wa taala ndax dégg nga Serigne Abdourahmane leeral na la sabab bi tax mu samp daara ji mu mel ni kon loolu ci ndigalal Serigne Saliou ci la tukkee su ko defee nag li nga xam ni moom nga ma laaj ci biir daara ji wax dëgg yàlla li nga wax léegi sama diggante ak Abdourahmane loolu moo am lazina la ak amano foo gis kii rek gis fa ka ca des euh, xam naa ci liggéey bi tamit lu baree bari ndax moom jox na ma ci cër bi yaatal na ma ci lépp lu muy mën a def ci biir daara ji dina ma woo ñu waxtaan ci kasaalika man it naka noonu daara jee nga xam ni mooy e, nuurul maa it kasaalika naka noonu ndax émission bi e, dafa mel ni sëñ jamilatu soxna jamilatu maanaam sëriñ abdourahman bi nga waxtaaneek moom moom nga jëkk xam ni man war koo defal émission mu la déedéet demal defal nuurul maa it sëñ sëñ asan émission ba noppi door a ñëw ci man loolu nag mm, maanaam kenn kenn xamut dal noo koy jàngate ndax loolu moom euh, mooy firndeel ni li nga wax léegi mooy daara nuurul maahid ak daaru rahman sunnatu rasul jenn daara la ndax daara nuurul maahid boobu tur woowu turu nuurul maahid bari na ñu ma koy laaj ndax ku ko dégg da lay xaw a jaaxal waaye Serigne Saliou moo ko bind ci loxol boppam te ko ci sama loxo kon dafa mel ni ñaari daara yi du du ñaari daara benn daara la su ko defee nag ki nga xam ne moo jiite liggéey bi liñ ci mën a seere rek. mooy liggéey la boo xam ne bu am solo la yaakaar naa ni weddi gis bokku ci ñun ñëpp dégg nañu xale yi njàng mi nga xam ni moom lañ jàng léegi di njàng alxuraan mu set mu teg yi ci yoon nga xam ni ahkaamu wit yëpp indi nañu ko di njàng mu rafet kon loolu moom lu ñu gisal suñu bopp la leneen li ci desit ñi nga xam ne ñooy jëmm yi nga xam ni ñoo seere liggéey bi moo xam sëñ Abdourahmane mi nga xam ne mooy jëwriñ ji moo xam ñi nga xam ne ñoom la wóolu teg leen ci kanamu xale yi ñu di leen jàngal yaakaar naa ni image yi wane na jëmm yooyu ku leen gis di xam ne nit ñi ay nit ñu sell lañu ay nit lañ yoo xam ni amuñu benn asar benn jeexital boo xam ni danga koy ragal ci ñoom kon wax dëgg yàlla sëñ Abdou mi ngi def kem kàttanam ci yar doomi jullit ñi teg leen ci siraatal mustaqim ba bu ëllëgee maanaam ñoom ñiy defar réew mi dañ ciy bokk waaye duñ bokk ci ñu yàq réew mi kon loolu yaakaar naa àdduna bépp amal nañ ko ci njukkal su ko defee moom nag day jëmm joo xam ni fi mu toll du jàmbat fi mu toll pour mu wax leen la dara laa soxla sax mënu mën mënta ne même conférence bu amee fii xëy na man maay këf micro bi wax waaye moom loo ko wax moom moom du la wax ni la dara laa manqué su ko defee nag loolu man dama cee xam lu baree bari fi mu toll fii mi ngi fii dund loo xam ne sëriñ ba daara yu baree bari maanaam xalaatuñ ko dund sax ba ci man mii wax ak yow ndax boo xoolee li mu dong yi mu la wax ni ñu ngi fiy jàng mu wax la lim ba nga xam ne mu ngi ci biir dong yooyu te fayuñu te sëñ bi xale yi yaa leen yoral añ yoral leen reer yoral leen ndékki ah yor seenum fóot yor seenum paj sax daanaka mën naa ni moo ko yor parce que sëñ Abdourahmane xale dina feebar mu yóbbu ko dispensaire wala hôpital jënd ordonnance ba lépp mat ba xale bi wér parent wax ko parent d'élève waaye daanaka am na parent d'élève yoo xam ni duñu fay ordonnance te kenn du ko dégg waaw te te am paj moom amul benn sëriñ daara bu ko mën bu ko nangoo gàddul daara internat bu ko gàddul parent d'élève man xaw ko bokk ndax paj mën naa dem ba àgg foo xam ne ay millions lay doon looloo tax bokkul ci li nga xam ni dañ naan sëriñ daara yi dinañ ko gàddu kon sëñ Abdou moom maanaam du ab jàmbatkay kay kat du jàmbat waaye man xam naa ne daara ji soxla na ndimbal daara ji soxla na ndimbal bu baax a baax dafa am loo xam ne nag ñiy dimbali daara daara daf maa am baayu daara boo xam daf daan wax ni daara dañ koy dar ñiy dimbali daara benn saaku ceeb ñaari saaku ceeb ñeenti litre diwlin wala ñeenti bidéy diwlin dama ni loolu baax na ndaxam waaye dafa am lu gën daara ku ko bëgg dimbali dëgg dëgg dëgg koy defaral wéeruwaay boo xam ni ba àddinay tukki day am lu jóge foofee di tàbbi ci daara ji di ko gunge laa te maanaam mooy wax fu ma indi ci benn misaal sëñ Abdourahman xam nga leeral na la fii ni la weer wu dee wane gi dinañ ko ŋacc ñeenti yoon waaw waaw ñi nga xam ni yàlla baaxee na leen nga xam ni wóor na la ñoom yor nañu alal joo xam ni ba àddina ñoom ba keroog ñuy faatu moom moom alal ja du jeex yàgg yàgg moom dañ ko fi bàyyi moom ñi ngi ko fi bàyyil xamuñu danañ ko fay ëllëg xamuñu nuñ koy def waa kon sëñ Abdourahmane mii est ce que mënee sulu woonu xool gaa yu baax yooyu di dégg wut oto vidange boo xam ne wii de ay fos rek lay def def ko wax fulillaahi def ci turu daara ji bu boobaa dina dikk fii weer wu dee dina màng li ci daara ji lépp ba noppi liggéey oto boobu di liggéey di di di def ci daara ji mais loolu wax fu la loolu lu am solo la loo xam ni wax dëgg yàlla jullit ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ak ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew tey dégg daara yi lu mel noonu dañ koo war a xam te di ci jàppale daara yi maanaam daara ku koy jàppale da koy jàppale ci wax fu boo xam ni tey am na ñoo xam ni waroon nañu mën a yëkkati kër goo xam ni duñ ko may sëñ Abdourahmane sax ni ko dugg ni ko dëkk ci dañ ko naan daara kër gii nañ ko luye weer wu dee liy jóge ci liaas bi wax fu la ba àddina tukki daara jee ko moom loolu waqfu lillaahi la te loolu am na ñu ko man lool mu yomb leen kon yooyu maanaam jàppale daara ji soxla na ko ko jàppale bu baax a baax ndax ki ko yàlla teg ci loxoom du nit kuy jàmbat waaye euh, budul waaw mi ngi liggéeyal diina te bu du woon bu du woon lii sëñ Abdourahmane lu mu am def na ko ci daara ji bu du woon daara ji ci misaal ba tey sëñ Abdourahmane boo dikkee ay sato lay am mm-hmm. waaw gaa yi am ay meuble ay immeuble di gaare ay 4x4 di wàññi seeni kër dama ne sëñ Abdourahmane lu mu am dana ko def ci daara bu doon loolu dina am lu mel noonu waaye nag jar na ko ndax kont ba mu koy def bu ëllëgee lu fi waay bàyyi moom bàyyi nga ko gannaaw waaye lu waay dawal fa nga koy fekk te foofu la koy dawal. leneen li ci des li nga xam ne moom laay wax mooy daara ji am na ay terrain yoo xam ne bi mu ko ameeg léegi lee mu mat ñeenti at juróomi at terrain ya fi mu toll war naa mat ñaata ñett sëñ Abdourahmane ñetti terrain yoo xam ni tey bu ñu amoon tawféex yi maanaam mën a liggéey terrain yooya bu boobaa daara ji dootu fay luyaas sëñ Abdou daara ji ñaata lay fay par weer luyaas bi deux cent quarante mille par weer deux cent quarante mille par weer moom la luyaas bi di fay kon loolu wax dëgg yàlla metti na mettiwaay boo xam ni tey bu fekkoon ñu ñu am kër goo xam ni daara jee ko mop moomal boppam maanaam doosul fay luyaas bu weer bu weer dee kon loolu dina mën a tàbbiwaat ci biir daara ji nekkinu xale yi day gën a rafet day gën a baax ba noppi coono yi day gën a wàññiku jàngalekat yi fii jàngale it bu ñu sañoon kenn du toog ci kanamu xale yi sa xel di dem ci leneen li li la war ci digganteeg sëñ bi da koy def ba defal la loo xam ni maanaam loola sax foogoo ko woon kon wax dëgg yàlla daara ji soxna ku ko jàpp soxla na ku ko jàppale bu baax a baax a baax ci fànn boobu ma tudd muy wàllu wax fu kon daal soxna muslimatu euh, wala jamilatu lii daal man moom laa doon ubbee rek bu fekkee am na yeneen kon mën naa tàggoo ndax dafa mel ni maanaam waxtu wi mi ngi bëgg jeex kon ñu ngi nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi seetaan Bichri TV te di leen wax ni daara mi ngi noonu xale bi dafa wax loo xam ne dafa dawloo yaram ñëpp xale bi soññ na mbooleem ku dib jullit ndax moo wax aaya bi sunu borom wax ni fastamsik bi la si uxiya ilayka innaka ala siraatin mustaqim wa innahu la dikrun laka wa li qawmika wa sawfa tusaluun wa sawfa tusaluuna jën ak fa la yëf ya ne waaw wa sawfa tusaluuna ku nekk am nga responsabilité ci biir alquran te bu ëllëgee yàlla dana la ko laaj am nga responsabilité ci daara bu ëllëgee yàlla dana ko laaj ndax doon nga jàng alxuraan ndax doon nga ko jàngale ndax jàngalu woon nga ko ndax bëggoon nga ñi koy jàng ndax doon nga leen dimbali ndax la la waroon ci daara def nga ko wala defoo ko loolu lépp yàlla dina ko laaj kon nag ku ci nekk wa kulun aatihi yawmal qiyaamati farja jooje nga xam sa sëñ Abdoulaye waxoon na ko nga xam ni fu mu tuddee aayab alxuraan day mel ni aaya baa ngi door a wàcc ak loo jàng-jàng alxuraan bu sëñ euh, Abdoulaye tuddeeb aaya day mel ni aaya bi tey nga koy door a moo tax saa booy dellu ci ay waxam ay alxuraan yooyu nga ko dellu si ndax xam yàllaa ko wax yàgg na ñu bari jaar nañ fi di ko nettali waaye sëñ Abdou Lahad na mu ko dugale ci biir xol yi moom rek moo ko mane noonu waaw te dafa waxoon ni wa kullun aatihi yawmal qiyaamati farda jëmm ju nekk di beroog sa borom yow képp mu di la laaj ba nga yaakaar ne yow dong la yàlla bind bu boobaa nag laajtee bu buñ la dee laaj ngay wax la nga doon def ci daara la nga doon dimbale daara yaakaar naa doo am benn tiitaange doo am benn njàqare yàlla na yàlla boole nu dimbali wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi ki doon wax léegi moo di Serigne Assane Diop xam ngeen ne demoon nañ ci daara nga xam ne ca la nekk muy Nuurul Maani mel ni ki ñu ngi koy jaajëfal a baax ci at kàddu yu am na ko jëmale jëmale ko ci daar ndax fi mu nekk nii waxalul eh, sëñ waxalul rek waaye fi mu nekk nii daanaka dafa ëmbaale mboolem daara yëpp ndax jafe-jafe bi sëñ Abdourahmane Ndaw am moom la daara yëpp am kon ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ci kàddu yu am solo yi waaye ñu ngi toog ak eh, ndey daara ji nga xam ne ndeysaan moo fi nekk eh, ci ci ci wàllu ndey daara yi xam ngeen ne jigéen ñoom taxawaay yu am solo la ñuy taxaw ci daara yi ñu bàyyi ko rek mu nuyoo ak mbokk yi moom tamit du ñàkk kàddu yoo xam ne war na ko ci sàmm ne jëmale ko ci daara yi Ibrahima nekk ci di seetaan télévision ma faatihul Bichri ñoom ñu jàpp ci daara ji. bismillahi rahmaani rahiim bismillahi mina seytaani rajiim bismillahi rahmaani maa ngi sant yàlla sant ma ñaari waajur sant sëñ Abdourahman mi sant gu amul ab yemukaay wax ji moom daanaka sëñ Assane mi wax na ko li nekk ci daara ji yépp sëñ Assane wax na ko daara ji moom metti rek la def man mi nga xam ne nii man maay ndey sëñ Abdou tantaam mu boole ma ci ndey daara yi daanaka li ma war man bu ñuy wax ndey daara yi sax damay xaw am kersa parce que li ma war yëpp defuma ko fi ndax xol bi yéene na mais man man bi yeggu fa waaw li ma waroon def ci daara ji yëpp sax defuma ko ci wante sëñ Abdou du daara ji donc li muy dimbale doomu aadama daara ji mucc ne mais day dimbale ay doomu aadama yoo xam ne dañ koy yaakaar ñëw fii ci moom mu di leen dimbale man xam naa ci dara bu baax benn ci man mi ndax man day jékki jékki léeg-léeg mu yónni xale jox ko dara ne ko yóbbul ma yaa say ci xam nga ni daara moom fa deful dara waroo faa jële dara te dama koy wax tiir bu jot mais xolam moo toll noonu waaw parce que dafa yor dafa yor xol xol dafa am yërmande dafa am yërmande ci nit te day dimbalee waaw li liñ ci waroon a wax yëpp daal sëñ Assane wax na ko ndax daara ji yaas bi noonu la demee day toog ba mu yàgg mu bégal xale yi lu am maanaa bëggul benn xale bu mer bëggul benn xale bu mer dañuy amee ay bor yi dañuy am bor yu baree baree baree baree bare mhm. bor yu bari dañ koy amee sax man mi daanaa daanaa ci nekk di leen wax yaay ci ci de élèves yi mhm. waaw moo tax nag ma di ko ñaanal daara ji mu yore mhm. ba mu ko sampee wax ma ko laa ne ko yoonu sëriñ Touba de amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am surtout alxuraan ji nga jóg te yëpp nag ci say maam nga koy doone sëñ mm-hmm. lii mu nekk mm-hmm. daf ko donn mm-hmm. waaw xëyur xëyur xëyur dal ci daf ko doon ci maamam ba ci baayam jàng alxuraan lañ xam gëm sëñ Touba di wéy ci ndigalam waaw ci yoon woowu la nekk fonk na ñaari waajuram tam ndax toog naa ba tey waajuram gërëm ko ci sama kanam day sëriñ ndaw kon nag moo tax ma ne ko yàgg yàgg rek fu nga jëm di fa yegg waaw man di ko ñaanal yàlla bu ko pakk fil fu mu jëm yàlla na ko fi yàlla yeggale ndaxte ku sa waajur gërëm moom mm. jarul ngay tuut jarul ngay ragal mm. te toog naa bu dul benn bu dul ñaare mm. waajuram gërëm ko muy sëriñ ndaw ak na koy juuf waaw man ma di ko ñaanal rek yàlla na ko yàlla taxaw waaw fu mu bëgg a yegg ci daal ji yàlla na ko fi yàlla yeggale waaw day day day day day yéex rek waaye sobe yàlla dina fa yegg. ndax xolom bi dafa rafet. Mhm. yal na ko yàlla jàppale. waaw ak soxnaam yi itam kenn gënu leen a sonn ci daara ji. waaw jaara mhm. ñu fi nekk ñëpp dañoo sonn ci daara ji. Mhm. xale yi ku fi nekk ñaari fan rek di nga xam ne daara ji métti na waxuma la jox bi ak fere yi mais yorin bi rek dafa metti waaw am nag yàlla na leen yàlla fay ñoom ñëpp Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi kon ki doon wax léegi si di suñu yaay na bu ci ndey daara yi lañ bokk waaye soxna Awa itam moo ngi nii moom it bokk ci ndey daara yi ginnaaw buñ ko nuyoo ziar ko rek moom it mu jox ko mu sànni ci ay kàddu. asalaamaaleykum mbooloo Awa Diouf maa ngi nuyu kon maa ngi leen nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di wax ci affaire daara ji di ci gërëm Abdourahmane Daw ndax xam naa ne sonn na lool lool ci daara ji ndax daara ji bañ koy formé ba léegi maa ngi fi. muy fukki at benn ci ren te boobu léegi mu ngi jàkkoon te ay problème yu méttee méttee métti ndax xam naa ci dara ndax maa ngi xëy saa yu ma xëyee 4 heures du matin laa fi jógee dem marché dem wuti jën fu ma fi jógee dem marché Caaroy wuti ndugg waaye daal xam naa ne moom li muy def fere moom wax dëgg yàlla metti na bu fekkee da am na ñoo xam mën nañ koo jàppale te dimbale ko te yàlla rek a tax ñu dimbale ko te yàlla rek a tax jàpp ci daara ji Abdourahmane nag ñun ñi ay jabaram man ak soxna maam Jaara mais ak maam ak Adama mu nekk tuuba ñoom ñëpp maa yor seen kàddu ñoom ñëpp maa leen di waxalit Abdourahmane ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant ndax nit ku baax la Abdourahmane lu mu ñàkk lu ne doomu aadama yi tax mu ñàkk ko ndax lu mu am jox na ko doomu aadama yi da toog sëngeemalu dara lu mu am war koo def suba bu doomu aadama yi teewee tey mu jox leen ko toog jàpp ci yàlla di xaar yàlla kon nag ñii ay jabaram dañ koy ñaanal yàlla ak njaboot gi di ko ñaan yàlla bàyyi ko sunu kanam ba mu dem ba fekkee njariñu doomam yëpp te ba ko ay waa këram lépp loo xam ne nag bëgg na ko suba ba ci ngoon ci daara ji yal na ko yàlla defaral te yàlla rek a tax kay jërëjëf ah, ngeen jëf mbokk yi ñu ngi toog ak ki nga xam ne moom moo di soxna si di soxna Joon moom tamit si daara ji la mbokk mooy fóotal ndongo yi ñu bàyyi ko rek moom mu sànni say kàddu. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp kenn ku nekk turam ak santum maa ngi gërëm Abdourahmane Ndaw bu baax a baax di ko sant bu baax a baax man maa nekk ci daal di fóotal xale yi maanaam fóot bi moom liggéey boo xamante ne nii kenn du la gestu kenn du la laaj doo def dara ñu ne la baaxul maanaam daal damay kii lu ma neex daal lay def lu ma neex laay liggéeyee dangay maanaam dangay liggéey. ñuy ñëw di la jàppale te loolu bu weddee ñu fayal la sa xaalis nga nekk ci kër gi ñu lay dundal di la defal lépp maa ngi koy gërëm daal maanaam ama seen ngërëm damaa mënta wax nag maa ngi gërëm sëñ Abdourahmane bu baax a baax di ko sant di gërëm soxna mii muy soxna Awa di soxna maam jaara boobu maa ngi leen di gërëm di leen sant ñoom ñëpp ak ustaas yi fi teew ñoom ñëpp maanaam ama ama ama kiiyam daal ama <laughs> fayam maa ngi ñaan yàlla yal na ko yàlla fay te lu mu bëgg yàlla defal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gërëm ñëpp di santi ñëpp damaa mën ta wax nag waaye li mu mën a wax dafa bari trop xanaa maa ngi xaar ba beneen yoon nekk yal na yàlla def jàmm di ko ñaanal ci kaw ak kanam. Eh, jërë ngeen jëf mbokk yi Serigne Saliou kii mooy Serigne Saliou moom it moo nekk euh, muraxib fii ci daara ji maanaam surveillant ci daara ji moom ñu bàyyi ko rek mu sànni ci ay kàddu. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit ñoo ngi leen di siyaare bu baax baax. te yëkkati ay kàddu yoo xam ne dañ koo jëmale ci daaray Sëñ Saaliw di di leen xamal yéen mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi yëpp ne leen daara ji daaray Sëriñ Saaliw la te dafa am benn jamono dongo yi ku ci jàng bay wàcc ba toll ci yewee ko Sëñ Saaliw bi mu ñëwee ci moom tàllal ko loxo yi ne ko Mbàkke dañoo bëgg nga ñaanal ñu bokk ci ñi nga xam ne ñoo am 4 x yi ak millions yi ba mën a liggéeyal sëñ Touba am ci sëñ Saliou daal dina tekk ab diir ba mu yàgg mu ne ko hu incha allahu day ami 4x4 ak i millions mënut a tax taxut nga mën a liggéeyal sëñ Touba daal di ko ne da wax nu ñaanal la yàlla suñu borom mu boole ci mu boole la ci ñi sëñ Touba di liggéeyloo daal di ko ne sëñ Touba moomu di sàllaw ko mu liggéeyloo moo la jox matuwaay yoo ko liggéeyale te loolu it rafet nañ ci ci jëmm ji toog di sëñ Abdourahmane ndax gis nañ ci moom melaw Serigne Saliou yërmandi ja ak tamit laabiir gi ci doomu aadama ak mën a dalal ku nekk nag ku mën a doon loo mën a ñëwee rek Serigne Abdou mën naa nekk ak yow ci woyofal jëmmam te loolu kenn ku ne xam na ne kun fagguwut mënoo ko ndax am na ci ñoo xam ne tey mënoo yendoo ñoom ci benn barab te waxuñ ñu la sa ko wala ñu ŋàññ la wala ñu di la wax lu ñaaw moom mi nag du def kenn loolu loolu nag mooy li nu fi indi di pas-pas bu wér boo xam ne ci kilifa lañ ko jëlee. indi ko ci pas barab bii muy nekk nu fi fas yéene nekk te jëmmi sëriñ sëñ Tuubaa rek tax loolu nag ma bëgg ñun ñëpp ñu bàyyi ci xel ñu mbokki taalibe yi te képp koo xam ne am nga sa ndimbalit te yàlla dimbali la nga bokk ci ñi suñ boroom di liggéeyloo xam na ni ñu ngi lay tàllal loxo ci barab bi kon nga bàyyi ci xel waaye nag nekk na loo xam ne moom ku yàlla def loo moom moom dangay seet da lay xool xoolaloo barab ba ngay def ñoddil sa jëmm ak sa pas-pas ak sa lépp jëmale ko ca nga def ca mu fay la yàlla nag moom moo mel noonu kon nag gannaaw yàlla dimbali leen ba rajo bi tele bi ñëw fii tey gi euh, ñu jottali leen kàddu yi ngeen jot ci kon nag moom mi ngi noonu kon ñoo ngi jégalu mbokki taalibe bi yëpp di gàttal kàddu yi foofu di nu wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw jërë ngeen jëf mbokk yi ki doon wax léegi moo di Serigne Saliou mu nekk fii surveillant ci biir école bi nga xam ne moom moo di daara ju am solo ji nga xam ne Serigne Abdourahmane Ndaw moo ko yore kon xam naa dañuy bàyyi Serigne Abdourahmane rek mu daal di tàggoo ñu daal di tëj émission bi ndax mu mel ni ki waxtu bi dab nañu. jërëjëf soxna Jamila ñu ngi lay sant bu baax di sant waa Bichri TV eh, tàmbale ko ci directeur bi ci ki gën a ci waxin <coughs> di sant bu baax suñu wëlale suñu Njaga Sekk ak suñu rakk ji yore caméra caméraman bi di sëñ moor Ñang euh, maa ngi sant nag ñi ma bokkal daara ji di liggéey comme ni ko sëñ Assane waxee léegi sa yaay say jaar ci euh, tàmbalee ko ci soxna Awa Diouf sunu soxna la ak kii di rakkam di soxna maam jaara ak seen rakk jële ca Touba di soxna Adama waaye sant itam ñii ñu bokkal liggéey bi soxna mi nga xam ni moo doon wax léegi te mu yor xale yi di leen fóotal te moom muy mitti muy taw muy naan muy naaj guddeeg bëccëg yëpp mu ànd ak ñun ci liggéey bi moom doonatuñ sax ay jàmbur léegi ay famille lañ euh, di sant itam kii boo nekkee ci boppu liggéey bi di euh, sëriñ saaliwu seen teg ci sëriñ Xaadim Mbeng waroon nga ko fee fekk ak sëriñ euh, <coughs> sëriñ Bousso ñoom ay ustaas lañu fiy jàngale ak ku mel ni Euh, Mousse Cissé di jàngal xale yi français waaw ak ku mel ni kii oustaz Dramé mi ak oustaz Makhtar Pouy ñooñu la ñu àndal liggéey bi ak ñi leen di jàppale am na sax soxna su ci dolli kuwaat muy soxna Ndey Sow moom it ñëw di jàpp ci liggéey bi di sant bu baax itam suñu tànt ji nga xam ne mooy yaay say Jóob bi ma ko waxee ne ko danga nga fiy ñëw rek dafa daal di bàyyi lépp lu muy def daal di ñëw te mag la ba noppi wérut waaye yàlla na yàlla jàmmal ko sëñ jóob moom mm, dañ koy ñaanal yàlla ndax daara ji niñ nga ko waxee daaraam la euh, dafa am nag tawféex sax boo ci feeñ ci jataay bi ndax dafa mel ni bu fekkee ne da di liggéeyu Serigne Saliou Serigne Saliou jox ñu ndigal li ñu di ko jëfe te léegi ci kàddu yi ñu mujj jël kàddu yi ki mujj jël kàddu yi di Serigne Saliou kon dafa mel ni kon Serigne bi toujours day wane boppam yàlla nañ yàlla dajaleeg nag tawféexi Serigne bi. tawféexam jooju nga xam ni daan na bari lool lu ko sëriñ Saalihu daan wax naan yàlla nañ yàlla dajaleeg tawféexi sëriñ bi mas na koy firi nag wax ne tawféexi sëriñ bi mooy sa àdduna jak sa àllaaxira jak kon yàlla nañu sunu borom defal tawféexi sëriñ bi kon ñu ngi lay sant bu baax di la wax waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Oustaz Abdourahmane Ndaw macha allah ci yaatal gi kon mooy uh, ki nga xam ne moo taxawal daara ji nga xam ne mooy daara ji nga xam ne ci lañ nekkoon nekk fii ci Kër Massar mel ni mu di daara ju am solo ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax képp koo xam ne itam bëgg ngaa jàpp ci daara ji rek mën ngaa jaar ci numéro yooyu nga xam ne moom daw ci suuf incha allah rab bi ngeen ci jaaree di ko jot ndax xam ne jëmm la joo xam ne mi ngi ci daara ji waaye te mi ngi liggéeyal lislaam ci yeneen côté ndax xam ngeen ne mi ngi nekk ci télévision bi ñuy wax uh, Lamp Fall TV macha allah moom it di fa bay waaram ci ñoŋal diine l'islam ñu ngi koy sant bu baax a baax di sant ñi nga xam ne ñoom lañ àndaloon itam ci wàllu euh, caméra bi mu di Serigne Mor kon mu mel ni ki ñu ngi leen di xaar rek ci daara ji niñ leen daan xaaree ci daara yi ngeen jàpp ci bu baax a baax kon numéro yaa ngi noonu di daw ci suuf dañ leen di jox dig dajee rek ci beneen daara boo xam ne ni itam dem nañ fa ngir defee kàddu daara yi kon sant nañ leen baax jaajëfal leen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bismillahi rahmani rahim qaasiin تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم